moo gën a c'est très important ñu daal di wéyali ba tey euh, waxtaan bi euh, ci mbirum euh, campagne bi la ñuy desandi ñu nemmee ko ne Ousmane Sonko daanaka fief yi nga xam ne moo nekkoon fiefu Macky Sall bu ñu waxoon dëkk yooyu rek ñëpp dañuy xalaat ne Macky Sall dafa ko doon gagné lu mu métti métti mais gis nañ mbooloo mu takk bi nga xamante ne amal na ko fa ca Añaam ak maatam ak dëkk yi nga xam ne moo ko wër. loolu nag waaw. Mm-hmm. donc xëy na li li koy andi. Mm-hmm. bon li ma jàpp ne moom la. Mhm. ndax tey def naa ni notoriété bi euh, le premier ministre am def naa ni kenn dootu ko weranteeti. Mhm. am na zone yoo xam ne nag léeg-léeg mën na am fu ñu bëgg far mais zone yooyu dafa daf ña fa nekkoon dañu amoon dañ am taxawaay boo xam ne dañ ko amoon si ñu dëkk ku mel ni ku mel ni far ba par exemple fi mu nekk mhm. mais nag bu ñu demee ba lii xew mu nekk lu wër Sénégal ñoom it amaana du ñu bëgg a des ginnaaw. du ñu bëgg gis ginnaaw te changement bi nga xam ne mu ngi am aussi ku nekk day bëgg tam dugal ci sa loxo si ñu bari donc moo waral tam di ma gis forcément ñoom it faaw ñu wane seen cofeel mm-hmm. ak aussi seen aussi bëgg bi nga xam ni bëgg-bëgg lu ñu am la ci wàllu changement mm-hmm. donc loolu moo tax ma jaakaar ni zone nord mm-hmm. pros bi mu fa demee te aussi yàlla defal na ko rek boo xam ni ak lu ni waaye mën a waxit kenn mënu ko dindi kenn mënu ko dindi leneen li si tegu nag mooy fexe ba loolu ko topp si zone yooyu parce que xam nga zone yooyu c' était zone yoo yoo yoo xam ne dafa daan bëri coow élection. Mhm. léeg nga dégg ñu naan électorat ba. bokkawul ak nombre ñi nga xam ni. Mhm. moom moo effectif ñoo voté effectivement. Mhm. léeg nga dégg ñu ni dañ gonfler chiffres yi ak yooyu léegi nag fii nii nag def naa ni lépp dina gën a leer donc mbooloo bu ko topp moom. ak loo xam ne aussi mooy po maximum bi fa mën a am comme électeur nombre d'inscrits bi bi norme bi réel mm-hmm. ak lay voté loolu moom def naa ni ci kanam lay lay lay gën a leer mm-hmm. mais liñ ci gën a xam daal mooy mm-hmm. zone boobu boo seetloo bari na ay autorités yoo xam ni même bu dee en terme de population kii ba effectif ba bariwul noonu mais bari woon na ay autorités yoo xam ni ay de de haute de haute de haute fonction étatique. Mhm. ña fa nekkoon dañ ko doon dañ ko doon occupé. Mhm. ba ba tax na ñu si bari si ñoom dañuy jël ay nit di leen wutal liggéey. Mhm. dafa def ay infrastructure ak yu demee noonu. donc foofu noonu ba tey pour man combat lay doon. ba tey pour man combat lay doon combat lay doon malgré lii am na mais man su su may conseillé. ña fa nekk nga xam ni dañ nekkoon ci bu pouvoir peut-être liggéey nañ ñu loo xam ni jël nañ ay nit wutal leen liggéey def nañ fay infrastructure mais kii ñëw na ak loo xam ni yàlla daka def ci moom muy yaakaar bu bu nit ñi am ci moom ak bëgg-bëgg nit ñi am ci moom li ci des nag mooy peut-être euh, nit ñi décider ku nekk xam réellement ban motif mooy tax nga voté ndax est-ce que da ngay xool li la kii defal walla da ngay xool que ne changement bi benn nit walla liñ la defal du loolu moom mooy indi changement mm-hmm. parce que luy mën a wax tam mm-hmm. ñi fi nekkoon nit ñi dañoo dem ba mere leen. Mhm. jëlee leen fi. Mhm. li ko matérialiser mooy pourcentage bi nga xam ni ñi fi nekk tey am nañ ko muy le président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. nit nag bu dee da nga ko ne da ngay da da ko voteel parce que wóoluwoo ki fi nekkoon nga jële fi ki fi nekkoon mu dem tooge ne nga ne ko toogal yow sa loxo dafa takk. kii ni man pour ma liggéey faaw ngeen jox ma arme wala faaw ngeen jox ma yóbbal. yóbbal bi mooy. par exemple exécutif xam nañ ni ñuy fonctionner parce que gis nañ ay blocage yu fi jot am fan yi ci ginnaaw. Mhm. donc ñi fi nekkoon ba tey ñi fi desoon te am pouvoir wane nañ seen pouvoir si ay menaces. Mhm. wax ne dañuy def motion de censure censure mhm. bloqué fii ay yoo xam ni mën noon na sax indi gàllankoor si ni état di doxe léegi nag yow miy voté da ngay xool est-ce que yow da ngay voteel ki nga xam ne da ko fi jëlee woon dañ ko fi jëlee woon mu tege ne loxoom tax mu ñëw tàllalaat la ni la jox ma est-ce que dangay ngay ki nga xam ni dafa danga da ne dafa taq mm-hmm. mu togg ne nga ne pour équilibre yow da nga koy joxaat parce que loxoom taq na pour mu jàkkaarloowaat ak pouvoir war a mën a amaat jumtukaay yoo xam ni day jub day bloqué parce que wane nañu ils sont pas matures si ni ma gisee man. opposition opposition bi mm-hmm. parce que man man du ma spécialité politique mais tey am na ci yoo xam ne bi ko bi leen jamaay tegalee xam na ni am na possibilité tas assemblée. Mm-hmm. ñoom mënoon nañ quelque part. sacrifier entre guillemets seen ay collègues. Mhm. comprendre nga. pour l'intérêt du pays pour l'intérêt du pays te bu mhm. boobaa mhm. duñ si gagné lu dul affection parce que déjà nit ñoom mere nañ leen bañ leen kaay yéen bokkatu leen. léegi li desoon nan waxtaan seen biir ni ah yii nii xam na ni buñ ko deful kay mën na ko def. mais def-def bi wala di bu ñu bàyyi mu jóge si jomaay. na dem si ñoom comme kat xam na ni carrément mën na ko def. mais bu ñu résister tamit teewul dañuy dañuy. mën nañ ko tas. dañ koy tas ñu xaw a ridiculiser seen bopp te du tey nit ñi mere nañ leen ba pare. Mhm. jëlee nañ leen fi léegi kiy voté nag day xool ndax est-ce que man damay voté ñi taq te ñu leen yéen def ngeen fi euh, ñi doon rey seen responsabilité lañ nekk ñin fi rey seen responsabilité la nekk ñin fi yàqal ak yi ma la limal sànq yépp léegi kaay leen wóolatuñ leen ñii la ñu wóolu léegi ñi nga ñi nga xam ne ñoom la ñu wóolu est-ce que da nga leen di bàyyi ñu dem ay loxoy neen. wala bokk nga leen di bàyyi ñu mbëkkantewaat ci loo xam ni c'est parce que ñun en réalité. li ma jot a gis si liy weesu nii si assemblée suñu politicien su rawatina opposition ba tey des nañ moteur. Mm-hmm. des na nekk à la hauteur n'est-ce pas de de la vision du peuple. des na lu bari taxawaay bu ñu waroon am ci assemblée amuñu ko dafa des lu bari. Mhm. dafa am na benn lettre ouverte bu ma adressé au direct au au futur député. Mhm. donc yooyu yëpp ñu ngi siy waxaat. Mhm. député bi nan la war a jegee askan bi nan la war a waxale askan bi. nan la war a fexe ba di déglu askan bi parce que ki ngay ki lay yónni faaw nga nga nga xam li mu lay wax lan la. nga xam lu lu koy metti ak lan mooy jafe-jafeem ko mën nga pour nga mën ko défendre donc man si wàll boobu noonu laa ko gisee voilà Moustapha ñu gis ne Ousmane Sonko añaam nga mu demoon mbooloo mu takk moo ko fa topp te añaam buñ ko waxaan rek xel yëpp dafay dem ci Macky Sall ndax Farba nga moo fa daal di nekkoon ci discours am sax mu Ousmane Sonko mu ngay xamle ni moom Farba Ngom bëgg na ne mu ngi jox niñ ay xaalis pour ñu ñëw rejoindre ko wala ñëw jàppale ko mais na ko leer dootul nekk li nga xamante ne moo di député ba tax sax Abdou Mbow daal dinay génn addu ci boobu la mbir wane ne daal moom Ousmane Sonko jamono ji xoxatal la fi nekkee ak def ay mbir yoo xam ne daanaka warul. waaw xam nga bi mu demee dem ba añam ak dëkk yooyu mu dem déjà constat bi ngay njëkk a def rek mooy ami boo xoolee dëkk yi da ngay xam ne dëkk yi wax dëgg yàlla bu ñuy wax équité territoriale amagul Sénégal. Mhm. dëkk la yoo xamante ne dañoo mel ni ñu bokk ci Sénégal. Mhm. ne serait-ce que environnement boo ko xoolee rek da nga naan lii da ngay xam ne lii te pour man loolu war nañu toll foo xamante ne Sénégal yooyu war nañu ko mën a dépasser waxuñu fépp mel ni Dakar waaye fépp xawoon ndurux Dakar sax nag au moins. Mhm. dafay gis ay taax yu normal inégalité ñu éviter inégalité sociale bi. voilà mais loolu c' est c' est c' éviter. Mhm. boo jógee foofu tey jii par exemple boo demoon nga gis benn seen sous préfecture. seen commissariat wala nga gis fa beneen foo xamante ne infrastructure boo xamante ne ci service état bi la bokk mais li leen njëkk marqué mooy mooy mooy état de délabrement yu infrastructure yooyu nekk mhm. da ngay gis ne ay ay bërëb la ay jumtukaay la yoo xamante ne chaise bu normal confort bi dara doo ko fa am nga doole ci climat bu bu tàng bu métti boo xamante ne tey jii pour man loolu rek war na gën a tax ñi nga xam ne ñoo nekk ay kilifa si dëkk bi ñu bàyyi xel waa gox yooyu mhm. parce que ay gox la yoo xamante ne euh, dañu yàgg di leen fàtte dañu yàgg duñ leen boole ci lu bëri ci ci ci ci lu réew mi loolu vraiment ñëpp ko war a déplorer kenn waru cee ànd. Mm-hmm. beneen mbir bi ñuy constaté foofu mooy dafa am façon de faire politique boo xam ne dafaa yàgg maanaam damay am benn benn responsable boo xamante ne Ami Cissé la moom ay milliards am yor benn cartable am. Mm-hmm. léegi ni may politiquer foofu mooy koñ bi yëpp maa yor seen dépense wala ñii ñëpp maay dimbali ñii maay def nii léegi lépp si yow lay centré wu su ko defee ñoom. ku nekk rek da nga fexe kër goo nekk rek ñu am benn sentiment de redevabilité bu ñu am envers envers monsieur X wala monsieur Y. Mm-hmm. moo tax à chaque fois da nga doon gis foofu dañuy am benn ministre am benn DG wala ñu am benn député maire boo xamante ne moo fay nekk tey ji ku ngénte mooy indi xar ku ku am dese mooy mooy jënd nag bi koñ boobu yëpp na tund bi yëpp mooy assuré loolu léegi ñoom comme yàlla dafa def ni yooyu dafay doon loo xamante ne dafa jafe si ñoom wala day metti si ñoom ku ku la jëndal xaru ngénte boo matu nga tuddee ko doom ji mhm. wala boo ko tuddee doom ji nga ne kii de sama kër gi waat naa ne képp ku fi yeewoo yow lay voté fu ko neex ngay xoole mhm. or ay gestes yu ndaw la yoo xamante ne ay cent cinquante mille francs ay deux cent mille francs nga koy dugal si ñetti kër ñeenti kër par semaine kër ni léegi yooyu ngay jëndee askan wi yëpp nga dégg ñu ne comme ordonnance bu yëgsee Euh, parce que ay souvent ay ñoo xamante ne seen du dëkk foofu ah Dakar la ñuy dëkki ñi ñu ngi ci ci ci dëkku dakaar yi taax yi dëkk ci quartier résidentiel yi léegi nag fële boo ñëwee wala nga toog boo yegsee ku am jafe-jafe nga recevoir jënd ordonnance nangam ak nangam loolu ngay def noonu tey jii amul benn rapport ak développement localité bi yow sa yoon ci tali bu baax sa yoon ci leneen ak leneen déedéet yow na nga fexe ba ñoom c'est-à-dire da ngay da ngay seen pauvreté pour mën a di exercer benn pouvoir si ñoom mm-hmm. da ngay fexe à chaque fois ñi gën di pauvre di gën di ndóol su ko defee. pour mën di leen noot. pour mën di leen noot léegi yow su ma la ndóolalee ba nga xamante ne amatoo dara loo su ma la joxee benn téeméer téeméer day mel ni cent mille francs si yow. exactement bu ko defee nga ne bi mhm. day mel ni te fekk ndóol googu nga nekkee moom mi la jox téeméer am na ci part de responsabilité léegi nag du bëgg nga génn ci ndóol boobu soo ci génnee du baax non du baax comme nag tubaab yi rek voilà day bëgg di la maintenir ñàkk a dominer ñàkk bu ko defee mhm. saa bu la séenee bu bi rek ñut ñëpp daw tàccu ay mm-hmm. waaye ñëw na ñëw na ba ñu ko gisee nañ xam ne nañ am xaalis fekk kooku tey ci li ko waroon mooy débu débloquer ay milliards fexe ba koñ bi am ay entreprise ay infrastructure mm-hmm. góorgóoru dem plaider leen def yu ma yëpp du ko def jox nañ leen pouvoir jox nañ leen doole mais yëpp duñ ko def mm-hmm. li ñuy def mooy nañu fexe ba ñu gën a ndóol ñu gën xiif ñu gën a mar su ko defee su ma indee benn siwo ndox sax mu mel ni or laa leen indi dañ koy ko donc façon de faire boobu moom la ñu yàgg politique ci village yi dëkk-dëkk yi nekk ruqaat léegi nag loolu moo waral ñoom du ñu opposé Macky Sall balaa mu doon ñëw foofu Abdoulaye Wade moo ko doon gagné. Mm. du temps de Diouf Diouf moo ko doon gagné. xam nga li ma la Diouf ji mu daan daan gagné noor bi du temps de Wade Dakar daan gagné te pourtant Diouf séeréer la. Mm-hmm. Euh, su séeréer la gën a jege du ko woon ko. moo tax ma ne ay dëkk la yoo xam ne nañ def attention du ñu opposé lu ci ëpp. Mm-hmm. parce que li tax lu ci ëpp du ñu opposé mooy bii paa nag peut-être fibre ethnique bi dox seen diggante na ci jouer mm-hmm. na on ne sait pas élection yi moo ko mën a wane mais li ñu mën a constater mooy. Mm. dëkk yooyu lu si ëpp seen opposition bu yàggee ba yàgg bu rombee benn élection beneen élection bu ñu fekk si dagg fekk ji leen. Mm-hmm. parce que dañuy jàpp ne boo nekkee ci état ci ngay gën a mën a am doole. pour jàppale ci leen lay gën a mën a dimbali. a mën a dimbali moo tax ñu bëri ci mm-hmm. maire yu nekk foofu sax euh, ñu ci bëri bu élection yi jàlloon tey ji boo moytu nga gis ñu ne dem naa jàppale ji Pastef. Mm-hmm. parce que dafa am façon euh, defee ak maire yi nga mooy lan mooy yow boo nekkee benn maire te sama localité te te sama parti dama lay xeex. léegi su ma lay xeex bu yàggee da ngay ñëw maanaam fon fon de dotation yi dama ko fexe nu mu ko téewee wala balaa nga sa jot di nga sonn lool mm. su amee ay programme du ma damay fexe ba doo sa jot. sa dëkkandoo maire bi nga dendeel mu nekk sam pat damay gis mu jot di def ay réalisation yow doo def dara. bu yàggee nag boo xoolee loolu sa waa koñ naan kii dafa ñàkk jom mhm. bañ ko falee xoolal kële li mu def fële xoolal fii amul mais tu es nga jékki-jékki dañ léegi léegi ñëw naa mhm. léegi boo ñëwee nag ñu jox la ci programme yi dimbali la jox la xaalis nga doo commencé liggéey mhm. wala ñu def la maire en même temps nga amaat benn poste peut-être benn ministre xaalis bi gën a bëri nga mën a liggéey sa gox léegi façon de faire boobu nag moo waral am ay ba léegi dafa am ay boo xamante nañ ko suivre nañ dina des ci Macky Sall. Mhm. wala dinañ wan ginnaaw Macky Sall on verra. Mhm. voilà aimé leen partager la bi ngeen di cliquer notification mën ko jot ñu gis ne ndogal bi nga xamante ne.